papa jëndal ma saako keeb sama jëkkër deful lii sama jëkkër deful lii jëndal ma diw jëndal ma lii tu es obligé de colmater loo am jox ko xam nga sénégalais tant que yaa ngi koy may day fone un droit c'est un ko a may bés bi nga koy décaler ne ko tey yoruma il te fait de il fait de toi un ennemi yow baaxoo yàq sa der tant que yaa ngi koy may yow yaay waa ji waa ji baax ji yow la mmh, mmh.

ñu ñëpp buñu ku bëgg tukki ñu la visa nga tukki parce que européens ñoom bu ñu ñëw fii ñoom dañuy librement c'est ça même seen doom yi seen doom yi ndaw yi Afrique Sénégal dañuy tukki librement sans visa sans rien du tout il suffit ñu yor passeport français ah ñu passeport français moo gën passeport sénégalais parce que loolu yëpp suñu diplomatie moo fa révolution dans toutes les institutions révolution on veut un président il va prendre son courage à deux mains renégocier la diplomatie sénégalaise Né nassaranti, hey passeport français Gagnez-nous sama passeport attention même nous négocier ba ci affaire nous avons gagnant gagnant Nous nga gagné maman ma gagné mais yon doo gagné maman ma perte ami ah, nous suñu dirigeant yi noonu Même si négocier avons suñu contrat nous nous, toujours moins gagné Nous, avons perdu au nom de quoi alors que tous les ressources se trouvent ici chez nous passeport français ils ont leur législation ñun Sénégal avons une législation avons une souveraineté normalement passeport français bu nous ñëw au Sénégal sans visa si nous avons une France sans visa nous avons à travers des échanges gagnant gagnant mais nous, on est complexés. On a des présidents complexés. On a des dirigeants complexés. Nous, nous taxaw wax nasaran ne ko hé, li fok modak parce que moi je suis souverain li yow dama yori rew nga yor rew a di président France ma président Sénégal nañu c'est ça mais ce qui ñu depuis 1960 alors pour dire là, franchement faut nous ñu xoolaat mbir mi. Mhm. bu fekkee dañoo bëgg donc euh, euh, Mangan gi il faut que ça se commence pas parce que mhm. euh, ci ay affaire japonais nañu diw jàpp nañu diw moom organiser yi le problème ne se trouve pas là-bas même si leen jàppee yëpp dina continuer il y aura d'autres mhm. d'autres promoteurs mais pour yooyu bañ il faut commencer à la source renégocier la diplomatie tout ça. Renégocier la diplomatie. Parce qu'on voit des Sénégalais parfois refoulés dans des pays. Alors que nous sommes refoulés. Tout ça, il faut, il faut renégocier tout ça. Allez, si nous voulons Tuki, nous allons Tuki. Comme Nassara, si vous voulez au Sénégal, nous mhm. allons tout récemment, euh, mhm. tout récemment, un pays comme le Burkina Faso mhm. a pris son courage à deux mains. Désormais, que pour Burkina, il te faut un visa. Mhm. Pourtant, c'est un pays qui est en Afrique. Mhm. ami de Burkina lay demal ambassade Burkina nga un visa mhm. voilà des pays qui sont en avance ils sont dans des voies de développement il faut organiser la société il faut organiser le pays mais Sénégal fille comme force euh, euh, euh, médecin sans Nous, ñun Sénégal fii lu waay ñëw rek dugg. lu waay ñëw rek mm-hmm. c'est la terre d'Agile. c'est mm-hmm. quoi la terre d'Agile bientôt les étrangers.

Euh, say collègues euh, ñi nga xam ñom ngay liggéeyandoo ñeu di la jàppale est-ce que lolu délit la ba tax ñu war la nak dal di poursuivre. xaba man lolu dam koy jaawlu yag na ko fi jaawlu ne le cas de gagne Demba Touré mhm. c'est un jeune engagé politiquement mhm. comme tout le monde ah un jeune qui est venu jang mhm. am xam-xam mu ne en métier ci ci métier bu muy exercer day def ce qu'on appelle de la politique parce que c'est aussi un droit c'est aussi un droit les politiciens classiques qui finissent depuis euh, le début ñoom ñooy ils continuer il faut que mu am 109. cent ils mhm. ay xale yi ñëw politique Ils mhm. mii boo bëggee def politique mhm. rien ne l'empêche de le faire mën nga def politique tranquillement maintenant on confond deux choses des propos tenus lors d'une scène politique et des propos tenu dans le monde dans le lieu professionnel Si nga boo nekkee ci monde professionnel ce lieu mhm. professionnel mhm. fi ngay liggéeyee nga tenir ay propos politiques c'est pas permis mais boo demee ci la chaîne politique nga tenir des propos politiques c'est permis c'est des paroles politiques Ngagne Demba Touré ba muy wax mhm. il était dans une toile politique nekkul ci bureau bu muy Là, la la yëkkati attention attention moto manela japp bi amul solo waruñu ko jàpp waruñu ko japp parce que munoo ne le pays demande pardon tu es dans la réconciliation ba pare nga nekk di japp ay nit ba mu japp ba mu jaral les greffiers ñi def ñi def sen sen sen sen seen kii euh, seen manifestation wala sen euh, grève observer sen grève di boudé les chambres d'audience lolu jaru ko parce que yo yaa ne da nga bëgg jubolé Yo, yo yaa ngay dem assainir la toile le comment politique nga assainir ko nga nit donc apaiser le climat du je wax maintenant apaiser le climat lu ngay jàppaate continuer di ay politique di détenus politique parce que Demba wax à part euh, détenu politique wax détenu politique

c'est une incohérence donc booy bàyyi da ngay bàyyi ñëpp booy vous nga jàpp ñëpp moo tax ma ne la c'est une incohérence quelque part et aussi c'est normal aussi ñoo yaay greffier yooyu pour soutenir leurs collègues ñoom tamit ñu ñu ñu ñu grève wala ñu buddee boycotter les salles d'audience parce que gis nañ ko fii ci avocat yi keroog ci l'affaire Juan Branco bu ñuy jàppee seen seen naataango les avocats ont, refusé de plaider. Ils ont vaqué à leur à leur à à leur qui à leurs occupations. C'est une affaire safara. mu ñu ñëwaat gis nañu les enseignants bu ñu ci perturbation observer les grèves. c'est une forme de lutte franchement ami man dama jàpp ni vous Demba Touré war même ça, luñ koy tuumal tout nakul monde, moko def. Mhm. parce que amul jugement. amul fondement légal. Mhm. il n'a pas été jugé pour la chose. Mhm. donc dañuy il est présumé innocent au Sénégal on n'a pas une présomption de culpabilité comme les États-Unis nous on a une présomption d'innocence aux États-Unis, même Donald Trump, aujourd'hui, il est mieux placé, il est placé, il est bien placé en tout cas, bien lancé dans les primaires. Yo xamantene mom actuellement aux États-Unis les élections primaires il est il est il est bien placé pour devenir président de la République malgré euh, amna ay charges contre lui c'est ça la démocratie. Mm -hmm. Il ne faut pas chaque fois nous mélanger le code pénal, mm -hmm. le code de procédure pénale et le code électoral. C'est ça. Petit bobo, moi, au Sénégal. Voilà. Euh, Alpha ñu ngi lay euh, remercier yaakaar naa ni euh, liñ fi waroon a waxtaanee Vous leeral nga ko ba mu leer naa ñu bàyyi rek nga daal di alors euh, Ami toujours ça a été un plaisir. Mm -hmm comme euh, ni avons faral di on de partager le plateau de Talk Matinal tous les vendredis. avec yo nous donne des questions pertinentes. Hein. donc euh, j'espère que les sénégalais yi donnent suivre 5TV. Hein, tout le monde est satisfait. de la pertinence non seulement des questions et aussi des réponses. voilà donc euh, di di ñaan ñep di souhaiter juma mubarak suñu internautes Yop, ñom Salif hein, mon frère Lady peuple. donc euh, moodu juuf ñoom euh, Siri Sène Diène ah ñoom euh, Benk bi ah ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi leen di jaajëfal ak sénégalais yoo xamante ne jotuñu bind ah te ñu ñuy seetaan directement ci le direct de 5 TV. Nous ngi leen di euh, nuyu ku nekk ak euh, ci tuuram ak ci santam ah, donc euh, di leen souhaiter donc une fin de journée ah, donc colorée de de la miséricorde de Dieu ah, wala di leen dig prochainement à lundi ci petit numéro de Talk Matinal merci beaucoup Arfan yow tamit juma mubarak ñu ngi lay remercier bu baax a baax waaye comme ni nga ko defee euh, ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen yitte euh, di ñu seetaan mais euh, yemuñu ci ñuy commenter en même temps di ànd ak ñun ci émission bi ku ci mel ni Cheikh Salif Diouf Modou Cheikh Omar Diédiou ak euh, l'œil du peuple Cheikh euh, Salif waa ñoom ñoo euh, commenté tey ñu leen di remercier bu baax a baax ndax yaakaar naa comme ni ñu koy waxee rek kuy wax kuy déglu mooy mbokkama tey nag vendredi nekk premier mars 2024 ngeen xam ni nag kon dugg nañ ci mois jigéen ñi waaye nag saa bu ñu ci duggee sama xel day dem ci sama uh-huh. dagguma la nuyu ma Badara Maar Badara Maar laa bëgg nga nuyu ma ko mm-hmm. waaw Badara Marwa arfa mi ngi lay eh, nuyu bu baakha baakha baax ko baax comme ni ma ko waxee sànq nag eh, dañoo dugg ci mois des femmes premier mars bi nak yemok anniversaire une brave dame di eh, sama belle-sœur bu baax bobu di Aïssatou Senghor comme ni ngeen ko gisee ci écran bi nak jongoma lol ma sha allah waye ni mu jongomawee rek non la baaxee Senghor maa di Senghor sukkandee la contane mm-hmm. na ci yow bu baax a taw bi nga xamni c'est une affaire de famille quoi euh waaw taw bi ah, bi lay belle-sœur bu baax baax arfa xam nga lolou yombul ndax mm-hmm. jamono ji mom xam nga rek comme li ñuy wax ci euh, njëkke yeek euh, seen jabaru càmmiñ yi waaye moom melul noonu ay satu hmm. macha allah uuf ñëpp bëgg ay rakam ba si man mii di jabaru rakam nag mu jël ma taf hmm. ma ci boppam bëgg ma ba samay mbokk yépp nag xam ko maa ngi lay ñaanal Senghor di yàlla may la gudd fan ak wér gi yaram li nga bëgg yëpp yàlla euh, defal la ko waaye xam naa ni sa bëgg-bëgg yooyu bi ci gën a euh, rëy mooy nga yóbbu sa yaay euh, maire Wade Khady Wade Màkka maa ngi la koy ñaanal yow tamit yàlla daal di la koy defal yàlla bàyyi la ak monsieur mbay ba ngeen nag dem bay suqilante bee jaaw comme ni ñu koy waxee nga dem ba xale yi teral la ku ma gis nag xam ni nag tey moom dama kontaan wax dëgg fa neex yàlla ndax sa anif moom mënuma rek lu dul wax ci